diw de te njabootu keneen la diw de bu ma sañoon ñu defal ko shahada te du njabootam moom njabootu beneen kilifa la mu ni yonent bi bu ma sañoon nga defal ko shahada yonent bi ni d'accord ñu indi mu daldi bind pour defal kooku shahada mu lay xamal ni kenn ku ne man nga gëm la nga gëm bokk fa nga bokk te du tere bu la yàlla wane leneen feneen bu ci sa xaqiiqa yeggee nga nangu ko ni ngay nangoo sa kilifa waaw صدقت كل ولي الله راعيا قدرهم بعين احترامي du Maodo ko waxoon waaw képp ku yàlla am ñu di la tudde waliyoo nangul naa la sa cër te maa ngi lay ormaal ndax li la yàlla sédd loolu mooy tax du tere ku lu sut nga ne ko njool mi laylatul qadr kon xayru min alfi shahr fekkee ni benn guddi bi moo gën junney weer kon mën nañu gëm ni yonent bi moo gën junney yonent mën nañu gëm itam ni alquran benn téere bi moo gën junney téere moo xam yu jëkk ya la moo xam yu mujj yi wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر doon naa jéem a déglu fan yi sax firikat yi ndax ma jàngee ci ñoom firi bi waaye dégguma lu ma xam waaw waaw yaa ku nekk ak façon ba muy waxe fekk sunu borom mooy géej wal fajr maa ngi giñ ci fajar ji nga xam ni ca la jant di tàggoo yóbbal ak penku fas yéene di fenk soow waaw bis bu jant demee ba tàggook penku dootu fa fenke lu dul di fenk ci soow nag bu ko nga xam ne àdduna jël nay bagage pour dem وليال maa ngi giñ ca bés ba nga xam ni fukki yëg-yëgu nit danañu sangoo lëndëm ci biir bàmmeel fukki yëg-yëgu nit mooy cinq sens yi ak cinq ya mu àndal xool gis noppu déglu bakkan xeeñu xet làmmiñ saf macc mu saf waaw loxo làmb daj fukk yooyu yépp bés dana ñëw yëpp na tekk ci biir lëndëmu bàmmeel dara du yëngu yàlla giñaat ci boobu giñaat ci bu ñetteel bi wa shafai wal watr wa shafai maa ngi giñ ca guddi ga roox bi di gunge yaram bi te di ko ñeewant ba ñu yegg ci buntu bàmmeel mu bàyyi ko fa soog a dem moom rekk wala witri soog a ñëw kon maa ngi jiñ ca fajar ja nga xam ni guddi àdduna dana commencé di yoxoosu bëccëgu àllaaxira di jël place am waaw yàlla nee na maa ngi giñ ci ma di leen laaj ndax jar na ko hal fi dalika qasamun li di xishar alam tara kayfa faala rabbuka bi aad jox la exemple yi irama dati al imad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamud alladina jaabu alsoxra bilwaad wa firawna di lawtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktaru fiha alfasad fa saba alayhim rabuka sawta adab kon nag inna rabbaka la bilmirsad liggéey boobu neexul xamuloo bi neex mooy la ma leen wax ca meeting de clôture ba fa ama al insaan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akramani daa di bàkku te fekk bàkku teel na wa amma ida ma btalaahu fa qaddara alayhi risqahu fa yaqulu rabbi ahaanani daa di saalit te fekk saalit teel na yàlla ni leen kalla bàkku teel na saalit teel na da ngeen a raté seen occasion ko occasion yi yan la mu ne la al yatim bi amatul ndey amatul bàyyi lañ ko bàyyil mu war koo dundal nga wuti pexe pour féetale ko sa bopp takuluna turaasa ak lëndam man miskin bi amul kàttan nga war koo fekk fa mu nekk dolli ko kàttan nga fekk alal ja nga ko war a kàttanale nga buub ko yëpp yóbbu sa kër wa tuhibuuna almala xubban jamman kalla ida dukkat alardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka walmalaku safan safan bu boobaa les sept sages conseil constitutionnel mooy wajaal malaku safan safan wajia yowma idin bi jahannam ñu indi recalé yëpp يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ak a neexoon ma teel a wut parrainage waaw wa yawmaid la yuadibu adabahu ahad wala yuuthiqu wathaqahu ahad kon nag ya ayyatuha nafsul mutmainna horizontalité bi daal di ñëw xaw ma nag ndax pilotage assisté lay doon wala déet c'est très important góor gi moo ko jàngaloon xale waaw est-ce que horizontalité bi lay doon waaw ndeysaan proximité bi lay doon parce que bu fekkee ni horizontalité bi la te comme d'accord na ci pilotage assisté lay doon donc foog mu am pilote ak copilote te bu boobaa az-zaman wal makan le temps et l'espace ñooy nekk pilote beeg copilote bi te ñoom ñaar du ñu juboo moo tax yàlla daf lay ñaan nga bàyyi fi yooyu yëpp jël proximité bi dem jël an nafsul mutmainna mu nekk avion sans pilote nga xam ni bu ñu programmé mémoire am rek ni ko irjii ila rabbiki radiyatan mardiya waaw avion bi di nga ci dugg mooy piloté boppam yóbbu la ba benn escale nga ni lu may def fii ñu ni yàlla moo ni nañu leen dajale waaw yéen ji nga xam ni validé nañu seen candidature yàlla moo ni naa leen dajale fii ndax fokk mu gis leen bala ngeen di dugg aljanna kon nag fadxuli fi ibaadi ndax partage bi partage de connexion bi waaw ñu war a duggante foofu ku ne xam sa moroom ñu def partage ci seen biir buñ ko defee ba noppi nag yàlla ne ah sonn ngeen waaw ndax yawma nasuuqul muttaqiina ila rahmani wafdan waaw comme sonn ngeen nag ah, ñu yóbbu leen ci village de vacances bi waaw kon nag wadxuli tax j'ai bien aimé damay jàng moom mii ci ñi may jàngal la bokk waaw <laughs> tabarakallahu bu ko defee rek xam naa moom njàng mi du sore trop benn baat ñaari baat ñetti baat rek ñu di ko bége di xam lu ci nekk rek li muy jariñ lan la